Tá com dëgg la mais daal vraiment euh, c'était une expérience boo xam ne elle était unique euh, dund nañ ci lu nekk tey ça nous a fait quelque a vu le mu ñëw solul robu avocat bi mais mu ñëw avocat yi warmaal ko teg ko ci table avocat yi dafa doon tekki lu bëri loolu nag moom vraiment on a vu comment aussi tu as vécu l'épreuve waaw loolu lu am solo la mais on est venu également PM parce que ci biir waxtaan yi rek ñi ngi ci intercoalition bi taxawagul woon Tambacounda mais jàpp nañ ne que soreetul monoon ñu ñëwoon aussi pour rek indi laas ñu waxtaan wax la ce qu'on a pu faire nga entraîner ko bu ñu entraîner ñu nit en fonction ni ñu xalaat ñu mën a gën a joxante loxo encore pour Tambacounda pour que la victoire soit plus large inchallah voilà loolu rek la woon maa ngi maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi maa ngi ziar ñëpp di rafetlu ñëw bi ma ñëw fii euh, di sant bu baax di sant bu baax son excellence monsieur le premier ministre Sidiki Kaba sant madame Kaba bu baax a baax a baax bu fekkee ne tumurankewuma ci tàmba yaakaar naa ne sans risque de me tromper mën na maa wax ne ñii taxaw fii ñoo tax tumrankew parce que kii wax na ko léegi dañoo bokk Cheikhul Khadim wëlbatiku bokk Daaru Xuddoos wëlbatiku bokk ci kër coon la bokk te mënuñu ko séddoo muy cheikhul xadim rawatina daaru xudus bi mu njëkkee ñëw seet si ma jukkik nooru daareeni la def addiya indil ma jox ma sijaada bis bu nekk mu defi jéego yónni ay nitam ñu ñëw indil ma lu ma xewlu monsieur le premier ministre depuis dama koy wax ne que li nga may indil xam nga ne du pour man parce que ay booli lekk du pour man ay kees yi fruits chaque jour du pour man mais boobu ma ngay xalaat ñeneen ñi ma nekkal démb rek moo ci mujj benn détenu nee na ma mais président boo demee lii moom lii nga ñu tàmmal nu ñuy def ma ne ma ne ko ñaanal leen ki indi xéewal yi ak fur wi c'est son excellence Sidiki Kaba kon su ma génnee euh, fi ma suñu boroom tege woon natt boobu du ma def lu dul ñëw remercier leen ci seen taxawaay mais yàlla defar ba moom bii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 Kabalimbe inone. Kaita kabalimbe inone. Kabab muta muta na tete. Tuoje ni basaje. Sini kare ka sini kare ni ma amba kola wole la. Ala kine ani ame. Ele ya. Ele wala. Sini wala. Dija kamara